الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ñu sant yàlla bu baax sant suñu borom mu ñu defal daaw fekkoon nañu jotaay bi yàlla may ñu mayaat ñu fekk ñu ren am nañu fekkoon daaw fekkuñu ñun yàlla may nañu fekk ñu dem daaw fekkuñu ko du seen yaafus soobar yàlla la ñun ñu fi teg fekk te ren du suñu góorgóorlu mbëggeel yàlla la kon nag sant yàlla bu baax baax baax mu ñu fekk ñu ren yàlla na ñu fekk déwén mbooloo yi nag fii nag kenn bañ a manqué yàlla sañ na ko mun na ko yàlla yàlla boole defal quartier bii nag cité juboo xam cité jub cité junkob la ñu ko woo waaye cité juboo la quartier bi quartier yu baax lañ mag yu baax ñu ñoo fii dikkoon ñu ñu ñëpp ñu ngi juboo ànda puisque quartier parti booluñu tariixa lu amul fii murid amul tijaan amul xaadir ñëpp ñoo ci bokk loo am rek ñoo bokk ak nit yi carte yi carte yi baax na carte yi nga xam ne du am yiw la ngi ñaanal yàlla Sénégal yëpp mel na carte bi la wax dëgg la nag dem dem yàlla coom Youssouf Sarr ñoom Alhaji Demba Yadd ñoom euh, ñoom euh, Malick Ly ak euh, si Gor Cissé ak ñu bari Mamadou Sall Thierno Mamadou Sall ñoom Thierno Ndong ñu nekkoon nekkoon fii carte yi mag yëpp dem nañu ndeysaan xale yi rek moo fi des waaye nag coobaru yàlla la kullu nafsin zaa'iqatul mawti képp ku musu dund dina musa dee eh, alhamdulilah rabbil jotaay bi rafet naa ko loolu parce que xam ñu ngi ñu ngi sant ñu fi ñu ñu sosoon bis bi la ñu sosoon bis bi yëpp sant na parce que yu baax la ñu boole ay nit yëpp ñu surtout dem ci yàlla dem ci rasulullah dem ci sokku mbokk loolu rafet na ko lu bon kay bu fenkalee nit waaye rafet naa jotaay bi bu baax baax baax sant na yàlla yàgg yàgg def ñu sant yàlla ñëpp ñuy def loolu ñu ngi kaamil bi bu ñu jàng yàlla la jotal ñuy dem yëpp ñu dem yëpp ñu dem ñu yàlla yéen aar ñu fii des fii xëy na si xamil bi yàlla sañ na ko mun na ko yàlla yàlla boole defal alhamdulilah rabbil alamin yàlla ñu fekkee déwén kenn bañ manqué mais min alhaji Alassane Thione maa ngi dikk fii ci quartier bi depuis 1993 maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp alhamdulilah rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muy xale yi koñ bi ah, yëpp. man maa ngi tudd Pape Alioune Kane. ñi ngi ñaan ci yàlla. yàlla fii ñu toog nii di wax. yàlla na yàlla yàkkal seen ah, def. yàlla def tey. su waajur yi laxu yàlla yàlla yokk seen leer. ndax ñu fi des sallallahu alayhi wa sallam di leen ñaanal yal na yàlla daan wax guddal fan yëpp waaw li ñuy def nii nag mu ni ñaan dafa nekk loo xam ne lii aada la mooy ngànnaay julit yëpp dañu fekk suñuy waajur daan ko defal seeni waajur fii ci quartier ngànnaay julit bi ñu fi jógee ñu des fi aussi di leen ko defal kon julit bi nga xamee ñaan yàlla yàlla bàyyi nu fi ba suñu doom di ko defal ba suñuy sët di ko defal seeni doom kon fa tabarakallah kooku am na ngànnaay yàlla yàlla guddal fan yi ci wéral ko waaw li ñuy def nii nag vraiment dafa nekk loo xam ne lii ah, lu nu donn la suñuy waajur ndaxte suñuy waajur fi la nekkoon ci quartier bi dëkk fi nekk benn juboo bokk ndey bokk baay ñun aussi bi juddoo fekk leen fi jaar seen tànk bokk ndey bokk baay xale yi topp seen mag mag ñi topp xale yi topp seen baay seeni waajur loolu la ñuy dundee ci dëkk bi ñun ñëpp ci leen nekk su nekkoon fii nekk fi jàmm ak salaam xuloo amu fi dara am dul jàmm ak salaam ndax ku gis bis bi xam ne am na ñoo xam ne sax dëkkatun fii wante bis bi moom dafa ñor ñëpp te ñëpp a bàyyi seen itte ñëpp ñëw fii kon nag ñun sant yàlla bu baax a baax a baax a baax bu yàlla defee karte bi nekk suñuy loxo ñun ca ñaan nañu yàlla daal bañ ko mujjee mu réer kon mu ngi ñaan ci yàlla yal na yàggal taxawaayu waa quartier bi xale yi jàmbaar lu lool lool lool daanaka ñun mag ñi sax amuñu ci dara dara dara luñ ciy def lu toog du xool lépp ñoo koy def ñu leen di sant baax a baax a baax di leen ñaan yàlla yal yàlla bàyyi leen ak seen xel yàlla dafa leen jàmm nekk ay barke suñu xool daal sedd na lool lool ndax fi ñu toog daal dafa nekk xam cosaan la cosaan la xam nga 69 ba léegi man na cinquante ans presque donc bu mu toog ba fii di def lu mel noonu di ko la sant yàlla rek ñaan yàlla waajur yi yàlla yàlla yërëm leen mag ñi fi nekkoon di suñuy mag di suñuy baay di suñuy rakk di suñuy yaay di di suñuy nijaay mm, te yàlla def ñu jóge fi ñoom ñëpp yal na yàlla boole defal jàmm quartier bi def ko quartier yi ko réew mi def ko Sénégal def ko fépp yàlla def fi jàmm bi jaay sa jërëjëf. tasuumu nahaara wa taquumu layla wa tusil jiraanaha fa qaala sallallahu alayhi wa sallam bi ne ko fi mu ne dafa am ku ñëw ne ko am na koo xam ne day. moom day day day woor bëccëg di naafale guddi wante day lor dëkk ndooram yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko kook dee safara la jëm <clears throat> rawaw akim kon loolu li muy tegtale maanaam ndeke jaamu yàlla lu muy kawe kawe maanaam ne nit di bàyyi xel ab dëkk ndooram jëlee nañ ci alayhi salaatu wasalaam mu del wax ne arbauna daaran jaaroon mu ne ñeent fukki kër maanaam ay dëkkandoor lañ ñu jële rawaw abu daawuda jëlee ci saar yi mu wax ne loolu de li ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam namm mooy arbaina an yamini wa yasaari wa xalfihi wa bayna yaddihi mu ne ñeent fukki kër ci ndeyjooram ñeent fukki kër ci càmmoñam ñeent fukki kër ci gannaawam ñeent fukki kër ci kanamam ñu ne loolu de mooy dëkkandoor yoo xam ne war nga seq jàmm war nga séq ak ñoom aw yiw <clears throat> ditiraanga ak jàmm yoo xam ne day bàyyeekoo ci yow di dem ci ñoom moom itam dana bàyyeekoo ci ñoom ñëw ci yow jëlee nañ ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu wax ne ñu jëlee ko ci ibnu omar radiallahu anha mu ne maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne xayru asaabi inda allahi taala xayruhum li saaibihi wa xayrul jiraani inda allahi taala xayru li jaarihi mune ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne manam ñi gën ci samay saaba de ëlëk ci yalla moy ñi nga xamne ño gënon ci seeni and ndor mune itam ñi gën ci samay dekk ndor ëlëk ci yalla moy ñi nga xamne ño gënon ci seeni ndor fi ci aduna kon loolu limitek tektale kon kon ndor lu mata sam la jëlee nañ ci ay sam waxaat ne mune benn bis dafa wax ne alayhi salatu wassalam <clears throat> naka man de amna ñaari dekk ndor fa ay ayhima kan laa ciy jublu ci ñoom ñaar yonent bi ne ko alayhi salaatu wasalaam qaala ila aqrabihima minka baaban mu ne ko na ngay fexe ba ki nga xam ne moo la gën a jege buntu ngay fexe noo maanaam defak moom jàmm am moom jàmm am moom lépp loo xam ne suñu boroom soxla na ko ba tey itam jëlee nañ ci ihyaaw ulum mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne wa alam annahu laysa alxaqul jiraan kaful asa fakat, mune ne nañu xam ne maanaam aqu dëkkandoor du fekk sa bopp rek bañ ko yebul maanaam safaan mu ne déedéet yemul foofu rek ak itam boo gisee safaan buy ñëw nga man koy gàddu na ko ko gàddul te xam ne wóor na la sa dëkkandoor bi àttandu ko mu fawqahu min rifqin wa isdaadil xayri mu ne koo xam ne lépp loo xam ne jàppandal la war a doon wala jàppandal la war a ci sa dëkkandoor nga fexe ba am ko Lola day lu wër ak itam di orienté yiw muy dem ci mom mu ne loola itam lu bax la ci nit ki mu koy def ndorom ak itam di yëkëti ñek di defal sa dekk ndor xamna ne li dañ ko soxla nga fexé ba yegg ci ñom mu ne itam nit war na koy defal ab dëkkandooram netti nañ ci ben way bu bax ñukay wax ibnu mukhafa mu ne dafa jotoon ben way <clears throat> mu am dëkkandooram mu jaay ben kërëm bi mu jaayee kër ga nak ndeke bor moko togg won benn bor lo togg won ba tax mu jaay kër ga <clears throat> mu ne loola nak dafa ñëw bi mu ñëwee jaay kër gi ba paré tok ci peggu kër gi ci keru kër gi mu ne bi mu toggé ci keru kër gi dafa wax mom waji mu ne ma izan bi hurmati zilli darihi in baaha mudiman mu ne dama dana tok ci ker gi de duma jog ci kër gi ndax kër gi war ma gi rek motax duma jog ci kër gi wanti jaay naa ko donti dama koy jaay sax ngir ñak jaay naa kër gi wan duma fi jog mune ne bi ko waajooju déggee dafa ñew yëkkati njëgu kër gi jox ko ko ba pare ne ko nak topuñ la dara na la wóor ne toppuñ la dara moy dekk ndor bo xamantene dekk ndor bu mat la xam nga nit jaay kër ba pare mu wóor ne kër gi jaay nga ko wante manoko bayyi nga ñew tok ci kër gi ne duma dem ngir manam baxa ak kër ga ak yaatu ba ak manam lang fa lang fa nekkon mu ne nag léegi duma dem waji ñew ne ko legi am ñegu kër ga ngi ni joxe ko nga delluwaat ci kër gi topuñ la ci dara dekk ndor bu baax mo koy def koko nechi, bok na ci ñi nga xamantene ne ñu jar roy lañ mu ne jëlee nañ ci yonente bi alayhi wax ne ndor dal lu mata sam la lu mata baye xel la lu mata ndax itam ñi dëkk fii ëllëg mën nañu dëkk yomal xiyaam loolu nag buñ ko waxee maanaam mën naa doy sëkk ci ne dëkkandoor daal lu ñu mat lu mat a toppatoo la te itam lu ñu mat a laaj la te lu ñu laaj ëllëg la loolu kon maanaam mën nañ ci taxaw ci wàllu dëkkandoor xanaa liñ ciy tofal rek mooy dénkaane Seydina Aliou karamala sëy na Aliou daf daan wax ne man waddaa nafsahu mawaadi al tuhami mën na man asaa bihi na mu ne ñu ndaw ñi nañu moytu di teg suñu bopp ci place yoo xam ne palaasu tuuma la mu ne képp ko teg sa bopp ci palaasu tuuma bul ñaaw bul bul bul bul bul bul weddi mukk wala ngay yadd ki nga xam ne dafa ñaaw yow ci dafa ñaaw ci yow njorto képp ku ñaaw ci yow njorto rek xamal ne daf la fekk ci place bu mu la mën a tuumaal loolu nag li ko Seydina Ali waxee dafa mel ni ci suñ jamono ji lay wax mu dellu waxaan ne laa taata lil maxluuq fi masiyati l xaaliq yow doomu aadama bi gëm yàlla nekk ab jullit bul topp sa mbokk wala nga topp sab xarit ba mu mooy loola yàlla ba mu def loola loo xam ne yàlla daf lay mere loola na ngeen ko moytu mu dellu waxaat ne laa yoxobu lmaru bi taaqiri aqihi innama yoxobu man aqzama laysa lahu mu ne nag nañu xam ne waa kër yëpp ak njaboot gi mu ne nañu xam ne buñ di maanaam ayibal képp koo xam ne am na àq te yéex a joxe àqam mu ne buñ ko di ayibal mu ne lu tax mu ne kay nañu ayibal ki nga xam ne daa yàqamte joxe tiraanga ba dem jëllum moomu di ko joxe tiraanga waxi Seydina Aliou nag lu am solo la pour nit ñi nit ñi di ko bàyyi xel mu ne ki nga xamante ne dafa amagul àq bi mu war a joxe joxe gu ko bu ko kenn yedd nañ ko bàyyi ndax ëllëg bu amee àq mën na ko mën na koo mën na koo joxe wante ki ñu war a yadd mooy ki nga xamante ne dafa dem jël lu mu moomu di ko tiraangalee nit ndax bu gàccee ñëwee rek ñoom ñëpp ñoo koy bokk wax Seydina Aliou nag lu am solo la mu ne itam laa demu sabura safara wa intaala bihi zaman mu ne kii muñ na ko wóor ne ëllëg dina am am tuuf li muy muñ dana ko dana ko fekk si suñu borom dana ko ko indil donte jamono ja moo yàgg mu ne bum bum xaddi na xam ne na muñ rek moo tax képp koo xam ne am na lu nekk sa kanam muñal rek te xam ne yàlla dana am benn bis boo xamante ne bu ñëwee dana fecci mbir yëpp nga jot ci li nga doon wut loolu la Seydina Ali wax mu waxaat ne man lam yu najihi sabru ahlakowol jasaw képp koo xam ne muñ du la du jot loo ci li nga soxla ne la wóor ne ab caalir rek moo lay moo lay alak ëllëg loolu itam waxi Seydina Aliou la karamala wàccewloo bi mu gëj bi mu mujjee wax nag nga xam ne ci li dafa wax ne man kasaul hayau sawbahu lam yara naasu aybahu mu ne képp koo xam ne jël kersa def ko saw mbubb mu nit ñi de duñu gis sa ayib ba al yowmal xiyaam barakallahu li walikum wa lisairil muslimin ñu ngi nuyu yëpp di siyaare ñëpp di balu ak ñëpp wax ji nag lépp lu ci dëng rek ngeen xam ci ñun lu ci jub rek suñu borom moo ko rafetal wasalaamaaleykum wa rahmatullah